na ànd ak yow saytu wergu yaram. incarné jeunes yi incarné fii euh, ci banlieue bi élevage Ladoum. Mm-hmm. donc El Hadj Gueye nga jël référence ak Baba Seye. Mm-hmm. parce que dëgg yàlla euh, référence la ci élevage. parce que xar yi mu fi yoroon jamono jooju noonu jeune bu ko yor. Mm-hmm. Euh, yomb la amul woon sax ci à l'époque jamono donc mën naa ko wax. donc nag moom ma njëkk fay ci añel boobu noonu mu am xar bu mu fay ma ci huit cent mille. ne ma boo bëggee ma dolli ma dolli. boo ma téléphone ma fay naa la ci un million donc euh, ma li ma def sama bopp rek euh, ma nekk école di jàng man je me disais que donc kon man am naa un million. dëgg denc naa un million. Euh, business boobu ma gisoon ci xarit. c'est-à-dire que mu gënoon gaaw. Mhm. moo taxoon ma ma xat mooy bu ma daan laaj sax du ma ko du ma ko du ma ko nangoo jaay. ok parce que dama disais que ñii liñ ba ba ci somme noonu donc man su ma liggéeyee mën naa ci am leneen ak leneen. dëgg la donc raison pour te te aussi aw ma ci woon aw ma ci woon benn. benn pression boo xam ne dem ma ci moom a cee wala benn soxla boo xam ne moo taxoon ma jaay xar. Mhm. moo taxoon nag ma téye xar yi téye xar yooyu si yooyu di ci liggéey. Mhm. en même temps di amale di jënd. Euh, ni ñuy dundee ba sa ginnaaw suñu borom subhaanahu wa taala ak yéen sallallahu alayhi wa sallam ku ci nekk am nga sa wasilam ku nekk am nga sa référence. parce que cadre yoon pour mu wax ci sa pour mu wax ci day xaw a day xaw a day xaw a di si man parce que dafa nekk euh, ñetti jëmm ñoo xamante ni dañoo dañoo dañuy. def sama àdduna dafa xaw a boo xaw a dafa dafa dafa doy parce que booy xool damay tàmbaleeg sama papa parce que sama papa moom euh, ñaan bu lëg bu lëg lekki alam na ko gërëme cooy waaye ñu ne déet na ko gërëme yàlla ndax yàlla moo wax bind bind cooy waaye lépp lu ñu am suñu adduna parce que nit la koo xamante si nii man mun maa wax ci moom parce que euh, moo ñu yar moo ñu jàngal teg nañu fu ñu war a teg wan nañu yoon mi ko xam ne dara ñoru ko lu dul jub ak diine rek donc li ma ci moom di ko ñaanal suñu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ñu ko suñu kanam ba ca kanam kanam a kanam mën na ko yàlla na ko yàlla def mun maa ci moom parce que mooy sama wayjur te lépp lu mu am moom la bergerie bi moom lañ ko tuddee moom la ñu wax bergerie Baye Mandiaye euh, sama taw ma ko am aussi moom laa ko tuddee muy Baye Mandiaye sama doom donc euh, lépp daal moom la euh, ki topp di sëñ Mat Chahir Euh, parce que suñ Mat Cheikh Lo bu kokki moom képp ku jaar kokki xam nga ko walla ku jaaral kokki nekk jullit arxuraan ñor la ci réew mi ñu nekk ak bitim réew xam nga kan mooy sëñ Mat Cheikh man moom lañ ma tuddee mu nekkoon wàllu suñu borom boo xam ne nii dara ñoru ko woon lu dul jàngal ak jàngale parce que suñu borom moo ko wax ne ci gën ci yéen mooy ki nga xamante ne dafa jàng téeréem bi yëpp pare di ko jàngale moom dundam gi yëpp da koo passé ci li nga xamante ni nii moo gënal suñu muy jàng téere yàlla bi ak di ko jàngale moom mooy ki doon wax ne képp ku ma jox sa doom indi ko fii si daara ji su ma liggéeyoon budget ba moom alalu réew wala ma am alal dama lay fay yow mi ko indi di la fay di di fay ndeyam di fay baayam moom miy jàng ma di ko fay bu jàngee ba pare mu dem jëriñ ay mbokkam man buñ gisante ba yow ma xiyaam ñu bàyyi mag yàlla